dal leen ak jàmm ci seen chaîne youtube talabul ilmi farida bu leen fàttee abonné activer cloche bi ndax ngeen di jot lépp lu ñu dugal sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 li ci ànd ak yéen ci xadiisu tabarani ak ibnu xibbaan biñ jëlee ci abdullahi ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha xalaqa xalqan li xawaaiji nnaas yafzau nnaas ilayhim fi xawaaijihim ulaika al aminuna min azabillah allahu akbar nañ yàlla boole ci gaayu baax yi yàlla boole ci gaa yu màgg yu tedd yi yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci hadis boo xam ne abdullah ibnu omar moo nu ko nettali nee na yàlla tabaraka wa taala dafa sàkk ay jaam inna allaha xalaqa xalqan yàlla ci biir mbindee fi am na ci ñoo xam ne daf leen sàkk lu tax mu sàkk leen li xawaaiji naas ñoom ñooy la aajo nit ñi laa ilaha illa waaye waaye yàlla nañ yàlla boole ci ñi waaye yàlla leen sàkk lu tax mu sàkk leen ñii pour ñoom ñooy régler awa xawaa ijin naas ku soxla ci ñoom ngay ñëw ku soxla rek ci ñoom ngay dem laa ilaha illallah ñoom yàlla de leen a sàkk rek fa nu féete fu ne ña ngi fay regle ay problème ca wàllum paj am na ñu fa yàlla def ci wàllu alal am na ñu fa yàlla def ci wàllu xam-xam am na ñu fa yàlla def fu nekk rek ñooñu am na fu leen yàlla placé ay gaam lañ yoo xam ne def leen a placé yafzau naasi ilayhim su nit ñi jàqee bu nit ñi tiitee bu nit ñi soxla nit ñi dañuy fëx daw dem ci ñoom ñoom ñu régler problème yooyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ulaika al aminuun ñi am kóolutee ngi nii ñi gëm a ngi nii ñii ñoo am kóolute ëllëg min azabillahi ci mbëggalum yàlla ñooñu day yàlla du leen mbugal allahu akbar ñi nga xam ne ñoom yàllaa leen sàkk waaye mbokk yi lan la leen yàlla sàkkee li xawaa iji naas ñoom ñooy régler aajowu nit ñi su nit ñi tiitee su nit ñi jàqee su nit ñi xiifee su nit ñi feebaree bu nit ñi maree bu nit ñi amee aajo yafzau nnaas ilayhim nit ñi dañuy fëx daw jëm ci ñoom waaye dem nga ci diw waaye woo ngeen diw ndax diw yëg na ko allahu akbar yafzau nnaas ilayhim fi hawaijihim ku soxla rek ci ñooñu ngay jéem ñu yëg ko kenn ci ñoom na ko yëg na ko diw yëg de yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na ulaayika al aminuuna min azabillah ñooñu day am nañ koo lute ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla du leen bugal am na ñu sécurité ne ñii yàlla du leen mbugal allahu akbar yéen mbokk yi ci yàlla gaañaa ngoog kon nañ ci jéem a bokk man ak yéen yëpp nañ jéem a bokk ci ñii nañu jéem a bokk ci ñi nga xam ne yàllaa leen bind waaye lan la leen yàlla sàkke li xawaa ijin ci aajo nit ñi lu tax lépp lu ñu am bokk nañ kook nit ñi seeni waxtu sax bokk nañ kook nit ñi yenn saa yi nga gis koo xam ne waaw kayitu sàngam laay rek la ñu ne ndax diw yég na ko bu ko diw yégee de léegi mu faju waaye yéen diw de dafa feebar te kenn amul luñ ko faj ndax diw yëg na ko yéen de yaa dañuy tabaxal sunu borom benn daara alquran fee ndax diw yég na ko dañoo soxla teen fee ndax diw yég na ko allahu akbar diw dey nangam ñu ne ndax diw yëg na ko waaye waay ku yàlla boole ci ñooñu yow day santal yàlla ku yàlla boole ci nit ñi nga xam ne ku aajo yow lay xalaat ku feebar yow lay xalaat ku ñàkk yow lay xalaat ku xiif yow lay xalaat ku jaaxle yow lay xalaat ñooñu day ulaika al aminuun min azabillah ñooñu am nañ kóolute ëllëg ne yàlla du leen buggal mbokk jullit yi sunu julli yi ñuy julli woor yi ñuy woor sarax yi ñuy saraxe joxe azaka yi aju lan lañ ci jublu pour yàlla tabaraka wa kontaan ci ñun dugal ñu aljanna kon bu ñu yonent bi ne nangam ku ko def am nga kóolu te ëllëg yàlla du la mbugal waaye waaye nañ bëri loolu waaye waaye nañ nekk ci loolu waaye waaye nañ def loolu góor góorlu leen ñun ñëpp nañu ànd góor góorlu ñu bokk ci ñiy taxawal daara yii ñu bokk ci ñi taxawal kërug yàlla gii ñu bokk ci ñiy taxawal kërug lislaam gii ndax ñu bokk ci ulaika al aminuna min azabillah ñooñu ñoo am sécurité ñoo am kóolute ñoo am garanti ñoom la yàlla assuré ëllëg yowmal xiyaam yàlla du leen mbugal lu tax ndax dañoo taxaw ci aajo yi nit ñi te suñu aajo tey mooy suñu daara ji yegg ba doomi jullit yi mën a jàng jullit yi mën a xam seen diine jullit ñi ñu xam fu ñuy teg seen tànk yal na yàlla taxawa tabaraka wa taala boole leen ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am kóolute ëllëg yowmal qiyaam yàlla du leen mbugal jazaakumullahu xayran asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.